wante tam tam daf ci am xaw a lu lu xaw a jaaxal ndax ñii nga xam ne bokk nañu ci coalition bu bees bi nga xam ne ñu ko bëgg a ñoom ci seen bopp ñu ngi doon waxtaan ak ñoom te ñu nangu ne opposition dafa war a doon benn mën a dem élection locale ba am yaakaar mën a daaneel benn bokk yaakaar kon lii bu amee dinañu bett. dinañu metti it ndax ci lu jógewul ci bokkuñu ca waaye gis na dafa di loo xam ne day néewal doole opposition ak unité d'opposition ndax bennoo boobu àla kulli alin foog mu am bu fekkee ne ba bëgg nañu daaneel euh, Macky Sall ba am ay communes yu bëri yoo xam ne dinañu fa doon euh, euh, njiit Euh, Sénégal nag lu noonu mel dina fi yàgg xew waaye buñ ci am naqar nañu toog des ci li ñu gëm oote doon benn ba sañ mën a dabu mbëbët bi nga xam ne bii mooy suñu bos ci biir opposition li ci gën a metti nag ci dëgg dëgg dëgg mooy munoo toog saa yoo yaakaaree ne opposition war na la xeexal ngay oote opposition doon benn loolu wees nga nekkoon kon opposition buy ànd opposition buy mànkoo amatula ma njëriñ xaaral ma demal sama bopp ànd ci ñoo xam ne a ah, lii mën a tax sax ñu mën a ànd newul ci ni ñuy xalaate politique ah ci li ñu wax newul ci li ñu xalaate war a doxal réew waaye mi ngi ci bu ñu àndee mën a toog mën a moom réew mi mën a doxal ñu ko bëggee te politique boobu jot na ñu génnee ko ci Sénégal jot na ñu indi politique boo xam ne li ñuy jiital li njëriñu Sénégal li njëriñu askanu Sénégal te mu bañ a doon politique boo xam ne di jiital li njëriñ njiitu politicien hmm. am na ñu jàpp ne sax euh, ñett ñooñu euh, dañu bëggam te loolu kenn na ci génne mooy lépp loo xam ne day néewal doole opposition dafa di loo xam ne yaa ngi koy dox muy doon njëriñu Macky léegi nag lu tax ah loolu awma tonton waaye ba tey rek mën nañu jàpp ne li juumte la kon ñu gën a toogaat des ci li doon dox ñun ñëpp ñu ànd ca opposition mën a doon benn. wax nañ la li tax ñu doxalee noonu puisque yéen ñëpp a ngi ci opposition bi ñàkku ngeen am ay échange non ah, waxuñu ko man day échange bi ma mujjee am maa ko am nag euh, Khalifa Sall ci àjjuma ca ngoon bu doon wax mooy xëy na lii dinañ ko def waaye ñun ñu ngi des ci war a yaatal ku nekk xaj na ci fileeg dimanche moom dara du am ndeke ñu ngi waajal communiqué bi ñu bëggoon a génnee ca àjjuma ci ci ci guddi. <laughs> bon. affaire bi nuruwul wax tuuti hmm. nuruwul wax tuuti trahison. Hmm? ma ne nuruwul wax ci seen i gët. Ah. mën na ko jege man na ko jege waaye ba tey rek bu ñu jàpp loolu nañu jàpp rek lii mën a doon njëriñ ci Sénégal ak ci askanu Sénégal doon ma ma doon benn nag ànd ci élection